déedéet ñoom bu ñuy jógee Ziguinchor di ñëw si tali bi lañ jaar. Ziguinchor lañ jógee. Ziguinchor lañ jógee ñëw. Ah enquête baa ngi en cours. am na lu defal defal defal waaw defal waaw Baye Fall nag euh, Pape Malick nag yow tamit ah, boo da koy bàyyi nag mu mu tamit wala mu defal da nga naan enquête da ngay en cours mais ñi xam ne si ñoom ñoo si war a communiquer de vrai wax li nga xam ne si moom moo fa am dëggantaan yaay am na défaillance boo xam ne si côté sécuritaire la yooyu dañ ko war a wax. mais enquête mais ñoom duñ ko wax parce que xamul tax danaa non enquête bi mu ngi en loolu mooy yàq sénégalais gis nga sénégalais du loolu bis nit bu nit bu defee dara danga naa ko li nga def nii kat. lii ak lii ak lii moo si am. tey jii université booy ñëw nañ fa gars yi ñëw nañ fa dugg nañ fa yàqate nañ fa yëpp bis yëpp ñu taal ko suñu restaurant yi lépp ñu. yàq yàq yàq ko te loolu nag seen njiit moom moo leen ko ji kibeer bu si nekk la muy euh, la mu def moom lay xeeñ parce que ñoom seen njiit noonu la mel. Mhm. dafa violent. parce que ñàkk xam-xam bi ñuy wax sax si moom moo moo ko yóbbee lii lépp. d'accord jii bu amoon xam-xam tey jii tey jii tey jii. tey jii tey jii moom bu amoon xam-xam Kajoor tey jii moom Sonko Sonko bu amoon xam-xam tey jii erreur erreur erreur yi muy def si wàllu communication si wàllu manifestation yëpp yi muy def ah yii nii da siy feeñ